mbokk yu tedd yi noo ngi leen di jaal li nga xam ne noo ko bokk ñun ñëpp moo di sëriñ Abdurahman Abdul Qudus Daarul Mu'ti mi nga xamee ne bi ci guddi la dellu ca boroomam subhanahu wa taala yàlla fa fekk ay ngërëm fekk fa ay leer yàlla nangul ko liggéey bi mu doon sonn di ko def ci ay xeetu jaamu yàlla ak am njàngale muy nag loo xam ne lu metti la lool ba noppi bette lool ndax koo xam ne bis ba ko jiitu rek mboolem julli yi daanaka julli ji nga ko loolu dana bette buñ ne dafa dem ci guddi ga faatu boroom xam-xam nag ku ko xamoon lu metti lu diis la ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ abu darda yàlla na ko yàlla gërëm mi ngi nettali jële ci yonante bi mu ne wa mawtul aalimi musibatun la tujbar wa thulmatun la tusadd wa huwa najmun tumis mawtu xabilatin aysaru min mawti aalimin yonent bi ne boroom xam-xam bu génn àdduna musiba la moo xam ne amul dara lu ko mën a wuutu waaye ab car bu fàq la boo xam ne amul benn car du ko mën a remplacer faaw mu am benn bën-bën boo xam ne dara mënu koo sakk mu boroom xam-xam bu génn àdduna dafa mel ne biddiw bu doon tàkk di leer daa di fay mu ne ab famille lëmm wala ak giir sax la wax giir giir mooy nga ne pël séeréer wala yu mel noonu nee na giirug lëmm génn àdduna te boroom xam-xam ba di dund moo gën maanaam giiru lam mu génn adduna moo gën a oyof borom xam-xam bu génn adduna boo demee ci mi nettali ne sayidna Omar radiallahu anhu doon na wax ne maw mawtu alfi aabidin qaa'imi leyli saa'imi nahaar min mawti aalimin basirin bi xalaalillahi wa xaraamihi sayidna Omar nee na boroom xam-xam bu jàng ba am xam-xam li dagan ak lu di ko dund di ko jàngal nit ñi kookee day junni jaamukatu yàlla waxut ay niti yi kese ay jaamukatu yàlla yoo xam ne dañuy taxaw guddi ya di woor bëccëg ya ba mat junni waaye am am nekkuñu nag ay waroom xam-xam waaye am nañ pëstéef xam nañ seen diine bay def ay jaamu yàlla nee na nga tànn ci ñoom junni ñu génn àdduna moo gën a oyof boroom xam-xam di génn àdduna kon nga xam ne génn àdduna boroom xam-xam lu diis la lool yonent bi salaahu salaam nag waxoon na ne lii daa bokk ci mujjug jamono mooy buñ demee ba waroom xam-xam yi dem ndax waroom xam-xam yi ñooy ñi nga xam ne ñoo yor làmp làmp yi di niital nit ñi di leen gindi di leen wax na nii fii ngeen war a jaar kooka nag bis bu demee ba génn àdduna ñuy génn àdduna kenn kenn luñ gën a génn àdduna àdduna di gën a lëndëm nit ñi di gën a sànku di gën a réer moo tax yonent bi salaahu salaam nee na woon mujjug jamono yàlla dana fi jëlee xam mu ne waaye yàlla bu fi jëlee xam-xam nekku ne day rocce xam-xam ci dënnu borom xam-xam yi waaye déedéet day faat worom yi rek day tàmbali di jël worom xam-xam benn par benn buñ demee ba jeex nit ñi duñ amati kenn ku leen di gindi foofu kon mooy wane mujjug jamono moo tax farlu baaxoon na waaye gën baax moo tax tuub waroon na jamono ji nekk waaye jamono ji la gën a la gën a jaadoo ci ay worom xam ay nit ñu baax ay defarkat barke démb la fa imaam imaam daw jóge alhaji Moustapha Gueye Youssouf al Qaradawi nga xam ne borom xam-xam bu mag la woon ak ñeneen sax ñoo xam ne xëy na miinuñu leen euh, sëriñ Abdourahman mii nag euh, bari na ay tomb yoo xam ne da cee ràññi ko woon tomb bu njëkk bi mooy moom day dëgg la sëtu maam na la di doomi sëriñ Abdul Quddus te ñooñu di ay kilifa yu baax Euh, bokk ci famille boo xam ne seen wu sant rek danañ leen wormaal waaye nag moom dafa yëgoon ne loolu doyut maa bokk ci kër sàngam yor sant sàngam yëgoon na ne doyut ni ko sëñ Tuubaa waxee ci jë ci nax ju qadaa il xaaj nee na gën kenn du ko defee ci diwee saanday wala mag mu baax mais mooy saa baay waaye dañ koy defee ci euh, ci ci xam-xam ak diine waalam bi annama tafa tafawutul wara bil ilmi wa diine yakunu fasbira kenn du wax ne di woy saa baay waaye ci famille nangam laa bokk wala sant nangam rek maa gën déedéet faaw yow sa jëmmi bopp dangay raw ci xam-xam ak jëfe moom loolu la yëgoon moo dafa maamam yu baax ya baayam ya fañ jaar ci am njàng ci yaru ci sàmm ci góorgóorlu foofa la jaar ba yëbuñu ko nag ci anam booba anam googa loolu ab bind la boo xam ne ñi bokk ci ay famille yu ràññi ko war nañ ko cee jànge waaye sëñ abdourahman it bokk na li ñu war a jàng ci moom mooy dundam gépp mu tegoon ko ci alquran ak sunna si yonante bi alayhi salatu wasalam nga xam gis ko dong boo ko gisee nii dong nga ne xamoo ci moom dara da nga xam ne kii moom kuy dund lu baax la moo xam ci yére yu oyof ya muy sol nga ne yére yi du ko guddal nga ne yonante bi sa daa tere yére yu gudd bay buubu ngir nga jublu ci puukarewu nga xool ni muy dund rek da nga xam ne kii wax dëgg yàlla ku yàlla ku yàlla ber la ku yàlla tànnal la mboolem sunna yi nga xam ne sax da nga koy fàtte dafa am ay sunna yoo xam ne dafa xaw a sew nga ne ñu ñu bari duñ ci bàyyi xel moom dako daa bàyyi xel da ngay dégg ci kasate bi buy jàngale sax ba mu yàgg nit nuyoo da ngay dégg mu dagg njàng mi daal ne wa aleykum te gis nga fay nuyoo ñu bari bayuñ ko xel ñu bari ba ñuy waxtaan wala ñu def nangam boo ne asalaamaaleykum duñ la fay lu mel ne tissooli lu mu mën a jàpp ak kum mën a waxal bu nit tissoolee eh, wax alhamdulillah dana daggalam na def na ko yarhamuka allah ba loolu day feeñ ci kasa di muy jàngale lu mel ne ay julli ay ay julli ay yoor-yoor ak lu ko nuru nga xam ne ay sunna la yoo xam ne ñu bari duñ ci duñ ci bàyyi xel sëñ Abdourahman bokk na ci liñ mën a jàngee ci moom mooy ku fonk ñii ñëw di ko siyaar siyaar si lay la waaw ñi nga xam dañuy ñëw di ko siyaar si dana leen jox seen wàccuwaay donte amul temps bu bari waaye dana leen tatagal moom bokk na ci ñi nga xam ne seeni siyaar daa metti ndax moom par kenn kenn la koy def xam nga am xam nga am na kilifa yu bari mbooloo dañuy ñëw toog kenn wax ca turu mbolam mu ñaan ñepp jogando waye mom kenn ku nek yaay siar sa siar bop da nga ñew ci ay da na la deglu da nga wax bu jare tontu mu tontu la la nga wax mu tontu la ci bam leer nañ ñi bu da ngay sakku ñaan wala lu mu doon tabarkàlla te fa joge mukk lu dul ne yëkkati na ab téré wala xasiida wala nangam wala ay ndigali wala ay téré jamoro yu mujj yi nim mu defoon mooy daa jëloon li xam ci diina lepp képp ku aju ca mom nga ne ab talibem nga boo ñëwee dala koy jox ne la ndigal li mooy li ci nekk nga xam ne mooy say farata na nga ko déglu ay yoon waaye na nga ko jox say soxna tamit ñu déglu ko ba li war ci yéen ci farata suñu borom ngeen def ko gën gaa néew te loolu da koy def ci ab clé jox la nga ne yow doo ci fere dara nga xam ne xam na ne sëriñ bu nekk yaa war a jàngal say donga yaa leen war a xamal te jamono neexut jot amut mu remplacer ko mu remplacer ko kele yooyu di ko di ko joxe kon ku am yitte ci ñi koy ziyaare bis boo demee sax nekkoo ko diw nangam yóbbante ne ma nee na mi ngi lay nuyu dana laaj koo kan la fu mu nekk ba laaj la fu muy liggéey saa yow ma fa demee bu ñu ma joxee ay yóbbante su ma ne ko lii de la ko jox dana ma ah mooy kan ndax ndax ndax dafee mas a ñëw ndax nangam ah, moom mi ci réew mi wala dana la ko laaj bu ëllëgee boo ñëwee boo ko mu laajaat la mu laajaat la ko kooku ak yittewoo gu rëy rëy rëy bokk na ci moom mooy ne mooy sëriñ boo xam ne sa yoo ne dama ko bëgg a dañ la dàq julli allahu akbar yonente bi sallallahu alayhi wasallam day ci ben hadith wax nañ ne nee won woon ida raaytum rajula yaataadu almasajida fashhadu lahu bil iman sa yu ngeen gisee waajo xam mom dafa min jakka ja man heure bu ñoddee mu dem ci jakka ja nee koku man rafet ñot ñu ne ak iman wala bok na ngeen ko sédel na ku gëm yalla ngi non ta lolu euh, même hadith ba sax bu dara nekkon suñ borom ca innama yaamuru masajidallahi wahana na man amana billahi ak yam ca sart yam ca andi sëñ abdurrahman sa yo ko beugé mëno ko gis lulul na julli kon li gëna mag ci l'islam loolu lañ koy ragné moy moy liñ koy takkal sa yo ko beugé gis dañ nan la da ngay xaar ba waxtu julli bu waxtu julli wa rombé ta Juli wo waxtu julli wa waxtu julli nga ko mëna gisat ben mu joggé ci kër gi jëm sa ci ji nga gaaw nuyu ko wala mu julli ba selmal bay def ba def ay awratam bala jog nga gaaw nga gaaw ko diggante yoy rek la ba ca tege moy mom dem siyaare jiko ajul la laajut protocole laajut nga defa am connaissance ñu bari dañ na wax bëgg dem bëgg nga tek ma ci aw yoon dama na né lool amul aw yoon sëñ Abdourahmane amul aw yoon mom dem fa heure julli ñepp fay bokk yam ku fa mëna demet ben rek lay doon jëru ñu lay bolé kenn koko di la nuyoole bu heure julli bu jullee ba nopi ñepp dañ ñëw taxaw nuyu nga ñëw wax yak ñepp ayam moom amul protocole daanaka amul amul ab coona amul ab coona kon loolu lépp ci li mu ràññeekoo ci la bokk kon fonk ki mu fokk jàkka julli nga xam ne mooy li moo tax yàlla defal ko tawfeex ba bés bi mu faatu nee ñu bés ba ko ba jiitu julli yëpp yàlla dimbale na ko ba mu ba mu julli ko du saa yoo gisee ñëwoo ñu saa yoo ñëwee ci jàkka ji ñu ne la bi ñëwul rek xamal ne lu metti daal na ko moo tax dama ko daal yërëm soo masaan dégg ñu ne julli si wut ndax damay xam ne lu rëy gàllankoor na ko lu rëy gàllankoor na ko bokk na ci sëñ Abdourahman liñ mën a jànge ci moom mooy tasaare xam-xam non seulement jàngale nga xam ne moom mooy méccaam jàngale alxuraan jàngale xam-xam waaye nag mu ñëw andi ci nag yoon wu bees mooy xam ne ne moom mii bis bii bàyyi woon na ko xel ndax xam ne ne jaam bi daa am fu muy yem ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ne man kat euh, doomu aadama laa bis dana ñëw du ngeen ma gisati sëñ Abdou loolu da ko bàyyi woon xel bàyyi woon na xel bis bii ndax xam bis dana ñëw doo fi nekkati moo tax mu teel defar ay kaset loolu manes naa jàpp ne bu fekkee du moom moo ko njëkk a def waaye ci moom la siiwe ca jamono ya seede di am lay def ay seede def ko ay téere nga xam ne da daa rëy rëy bari bari bari bi jamono doxee ba ay carte mémoire am ay kele am moom moo koy defal boppam bu ci nekk téere bu nekk dana ko dégluwaat ba njuumte bu ci amoon mu jéem koo jubbanti te boo ñëwee dala koy jox ngir yàlla loolu moo ci gën a yéeme majjaanan lay doon day jël ab kele ñëw jox la ko toppatoo la loolu lam ci jublu woon mooy bu demee ba nekkatu fi am jangaleem des fi loolu nag yàlla nangul na ko ci nangu ko rëy moo tax loolu ñu bari jot nañ ko ci roy sunu maas geeg ñu bari di jàngale ci ay whatsapp yeeg nangam ñoo ñëpp ci yoonu mu xotti woon la te yonente bi salaa salaam nee na képp ku xotti yoonu baax euh, ñu roy la ca kala ca roy tuyaaba jum ci am dang ko ci am te moom doo ko yàqal dara ca tuyaaba jooja kon ñu bari ñi jàngale wax dëgg yàlla foofa rek lañ ko gisee bu dee ñun suñu jëmmi wopp yi daanaka man nga ne lépp loo dégg ñu di ko Eh, bu doon téeméer la mën ngaa jàpp na juróom-ñeen fukk yëpp daf ñu ko jàngal moom ba noppi ñun duñ ca dara nit ñi di ñu ñaanal naan li ngay jàngale mel na mel na fekk ñun duñ ca dara dañ ko roote ci moom dong tànk ñëw jox leen kon dafa mel ne bu ñu sant cant li ca moom lay dellu waaye delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala kon méthode boobu moo ko fi njëkk a indi ba ci jamono yu mujj yi sax lim xewaloon mooy bind ci loxoom xasida yu bari bu ngeen demee ci ñuy wecc ko xasida da ngeen ko mën a am man li ma yor ay xasida yu ma jox ba ci nuuru bi ma euh, defe naa mooy li ma mujj jox su fekkee juum ma mu bind ci loxoom mu yëkkati ko jox ñu fekk am lu ñu doon sant ñu bañ ko ko defalee ba noppi delloo ko mu jox ñu nuuru daare ni boobu ak yeneen i mbir kon lim jublu ci bind bind bi ci loxo bi xam na ne xasida am na de xam na ne foo dem ñu jaay la nuuru daare ni waaye daa bëgg tuyaabaam mooy bis bi la doon bàyyi xel daa bëgg lim bind képp ku ko yor di ko jàng nga xam ne lii ci loxoom la bàyyi ko boo ko jàngee mu am ci tuyaaba moom da doon bàyyi xel bu fi jógee mu man di am tuyaaba ju ko man di fekk ci fa mu nekk moo tax bokk na ci képp ku ko bëgg di ñaanal del wut xasida yi mu bind ci loxoom nga di ko jàng waaw bokk nga di ko jàng wala mbind mu baax mu mën a doon rek nga di ko wala boog téere xam-xam yi mu jàngale boo koy dégluwaat na lu wóor na yaa ngi koy yaa ngi koy loolu bokk na ci li nga xam ne daf cee daf cee ràññi ko lool yàlla yàlla dooli koy dooli ko yërmande dooli ko yërmande ak i leer waaye bokk na ci lim ràññi ko woon mooy ñi wax ne dañoo aju ci moom da leen daa fu mu toll lu leer nañ la leen daa digal alxuraan ju set sunna si yonante bi salaa salaam ju set li nga xam ne sa yoon wa sëñ Tuubaa jaaroon te mooy yoonu mag ñu baax ña gaa ñu baax ña mu di ko sant am na ku ñu xam koo xam ne daa demoon ci moom ne day jaayante waaye lam ko wax daf ne ko ndigali yàlla digle na la wóor ne maak yow ñoo ko bokk yëpp jottali naa la ko ndax man jottali rek laa ci am lépp loo xam ne waxtu julli nag heure bu jotee loo mën a jàpp lu mën a doon bàyyi ko bàyyi ko dem dem jaamu ji yàlla dem julli ci liggéey jii muy wàllu gëstu fàggu alali adduna saa yoo xamee ne benn dërëm boo ci amee sikk sàkka lew na wala liwut bàyyi ko bu ko jël nga xam ne yu mel noonu la ko sant te yooyu yëpp nga gis na ay santaane ta te saa yoo demee mu lijjanti la xool xam nga say farata jox la kale yi ma la waxoon ne la na nga ko jàng na nga def nang ba fi mu toll nii maa ngi yor yóbbante boo xam ne joxaguma ko borom eh, ndax borom daa nekk Amérique ba fi mooy kale la boo xam ne ay téere xam-xam ak ay xam sa diina moo ci nekk mu santaane ko ndeysaan yal na yàlla dooli ko jéggal dooli ko dooli ko yërmale moom sëñ Abdourahman waaye nag euh, bokkoon na ca li nga xam ne daanaka moom laa koy tëje mooy méccaam mi sëñ Abdourahman jàngale xam-xam ak alxuraan fi mu toll li mu yor ci daara bari na ba ca daaraam ji yees ji mujj a naal nga xam ne daa dem ba ca bitib daaru mu dagg fa pàkk yoo xam ne kenn xamul na mu toll yaatal ko ba tabarkàlla nga ne lim yor ci daara ay nit di fa jàng alxuraan kenn xamut nu mu toll ñu ngi ñaan suñ borom subhanahu wa taala mi nga xam ne euh, moom la fi nekkoon di ko liggéeyal di liggéeyal diine islam ji di liggéeyal yoon wa nga xam ne moo yoonu Serigne Touba radiyallahu anhu te mooy yoonu yonante bi salaa moom dafa waxoon ne diirub bi mu xàmmee mësta bëgg lu dul yàlla boo demee ci xësidaam yi mu def wa mus mayaztu maa ahbab maa ahbabtu shay'a siwal mawla na muznibina loolu di boo demee ci mbindam ne man diirub bi ma xàmmee ba léegi musuma bëgg ku dul yàlla mi nga xam ne mooy jégalkatu bàkkaar yi ñuy ñaan suñ borom liggéey bi mu def lépp ci lu baax ak di ko yaatal moom rafet na njort ci moom problème bi kay ñun ñii mu fi bàyyi euh, ñu góor góorlu waaye nit ku baax moom bu génnee adduna ni mu ko waxee woon ca euh, silkul jawahir ne nit ki bu nekkee adduna di jaamu yàlla buy génn adduna dana mel ne ko xaw a tiit ndax daal miin adduna waye bu génné aduna ba dem ci suñ borom ba suñ borom defal ko ay teraanga yam koy defal néna day rëccu sax yéx yee ñëw kon nak yalla na yalla nangul yalla na yalla jéggal yalla na yalla yërem ta ñu bayyi xel nak publication yi ay photo ak ay nangam loola xeyna na bi rek waye ñu bayyi xel nak ñu baña top ba baña ñaan nit ki lu mu baax baax lo nga xam ci baax dee ko ñaanal njéggalu yalla dee ko ñaanal yërmande yalla bokk na ci chat nit faadu ñu naan mom baaxoon na mom daal mo xamna dem na aljana ba do ko ñaan lool chat la ca mom kon nag nañ ko ñaanal euh, jërut buuxante jërut naan ku nekk fa nga toog la nga man nga def ko jàng ko yéene ko yool bi te sooy julli nga bañ ko fàtte loolu rek mooy mbir mi ta nag lam nekkoon ak di ko santaan ak daa ko jàngale nga góorgóorlu ca loolu moo ëpp solo adduna daa yàqu ba léegi nit ki bu nit bu faatoo rek nit ñi dañuy coow nii rek daal koy publier ku nekk statut ah, lii doy na waar daal ko yemale foofu loolu ëpp naa def loolu ëpp naa def yàlla noonu yàlla boole jéggal yàlla noonu yàlla boole dimbali allahuma salli ala muhammadin wa ali muhammad